ginnaaw ba nga nuyoo ba njëkk sànq fi nga njëkkee rek bu ñu waxee ci première mais mooy revendication ah, euh, tey jii nga teewal fii liggéeykat yu Dakar Dem Dikk rawatina syndicat bi nga jiite tey jii bu la laajoon lan mooy seen point revendicatif lan la. waaw di sant yàlla suñu borom rek di fàttaliwaat tamit tey le site 3D dafa nekk un syndicat de qualité parce que ñun dañuy def syndicalisme autrement donc di wax rek ni syndicat bi ñëpp xam na ni je suis le général bi nga xam ni. Omar Gueye moo ko jiite woon nekk le deuxième ak le doyen père Mamadou Lam Mamadou Lamine Mangane Omar Gueye ñëpp xam nañ ko. fii këram la. mu nekk tey le chargé de mission du DG. Mhm. ñu koy jaajëfal parce que suñu grand frère la. Mhm. donc tey syndicat bi avec le nouveau bureau légitime. Mhm. bi nga xam ne dañ ko fal ci congrès. li ñuy ñaan yàlla rek mooy revendication yi maanaam jafe-jafe travailleurs yi nga xam ne tey travailleurs Dakar Dem Dikk ñu ngi koy dund. léegi balaa ngay lan lan mooy syndicat autrement ci yow. su ñu waxee syndicat feddi syndicalisme autrement mooy gën a taxaw ci àq ak yelleef yi. Hmm. gën a xeex injustice yi nga xam ne day am ci biir kër yi. Hmm. parce que mënul ñàkk. Hmm. ñun noonu lañuy ñuy doxee parce que syndicat de qualité lañ yor te travailleurs yi gis nañ ni à chaque fois ñu ngi si ay jafe-jafe rawatina ak waa travailleur Dakar Dem Dikk yi nga xam ni tey su may wax ci Sénégal ñoom ñooy jàmbaar yi ndax ñooy yóbbu nit ñi lu xew ñoom ñoo ciy dem. kon donc ñooñu moom il faut ñu taxaw jàppale leen bu baax moo tax ñu ni syndicalisme autrement fas yéene taxaw ànd ak le bureau défendre les intérêts. de dem dikk d' ak l' intérêt général de tous les travailleurs. lan mooy jàmbatu liggéeykat yi foofu. waaw jàmbat yi nag euh, kër goo gis si àdduna am na ay manquement mais ñun dafa am lu ñuy doxee ndax ñun nekk un syndicat bi nga xam ne toujours dañuy collaborer parce que dafa am li nga xam ne dañ ko moom am lu moom am lu ñu bokk problème yi nga xam ne tey am na ci biir Dakar dem dikk loolu c' est ndax wax dëgg yàlla. kon jarul woon ngeen koy junj. non parce que boo ñëwee ngeen da nga toogal liggéeykat yi te a wax seen jàmbat pour man sa toogaay fii mun solo si du bari. noo jàmbatu. premier mai jàmbatu travailleur dinaa ko wax mais dama ni. am na si li nga xam ni premier mai. xam nga doon yaa si balaa ngay dikk ci euh, direction beeg euh, ñi leen jiite mais liggéeykat yi ñoo tax nga toog fi wax ma lan mooy jàmbatu liggéeykat yi après ñu avancé. dama ne la liggéeykat yi ah. seen ay jafe-jafe. Ah. moo tax ñu toog fi te loolu moo tax suba guddeeg ngoon ñuy jafe lépp lu ñu mën pour jàppale leen dama ne problème mu liggéeykat yi actuellement nii à Dakar dem dikk li nga xam ni ci biir kër gi la à l'interne loolu ñun ak la direction générale la démb nag première dafa nekk li nga xam ni ay doléance yi nga xam ni peut bu ñu ko waree wax ak état de Sénégal comme par tey ñëpp gis nañ ni tey liggéeykat yi sonn nañu te gis nañu président daal biir yokkal na travail seen ay salaire augmentation des salaires moment bii ci ay jafe-jafe la nekk parce amuñu ay kaar yu bees dañuy góorgóorlu rek ci li nga xam ne moom la ñu am mais kaar yi nga xam ne dafa war a ñëw mooy les bis Iveco te DG bi wax na ko fin juin dina am 370 bis yu ñëw 293 bus réseau urbain ak 77 interurbain kon yooyu dafa nekk li nga xam ne ci loolu la ñu war a njëkk taxaw parce que soo amul kaar mënoo def dara ndémb na yaa ngi wax euh, ci augmentation salaire président li mu tontu c'est catégorique le président Macky Sall nee na waxi yokk bu ko kenn wax fii ba 2024. léegi mooy wane ni tontu boobu noo gisee. xam nga tey dañuy sant nag le président de la république son excellence monsieur sa Sall. Hmm. parce que man dama naan tey mooy la plus haute autorité du pays. Hmm. Sénégalais yi ñoo ko fal. Hmm. tey ñun dakaar dem dikk. ñun deseelatuñu dara Macky Sall parce que gis nañ ni à chaque fois day jàppale dem dikk mais nag actuellement li mu wax ci problème mu salaire yi ndax kilifa la waxam da koy sàmm parce que tamit buggul wax li nga xam ni du ko def waxul ni du ko def mais. mënu ko ci moment bi nii mais dañuy ñaan yàlla que li nga xam ne tamit mënta ñàkk ci li mu mën ci travailleurs yi mu defal ko travailleurs Dakar Dem Dikk yi mhm. mais président ba ñu yokkal salaire travailleurs yi peut-être li ñu ko bëgg a proposer loolu la mënul te tamit du engagé wu ci li nga xam ne tamit mënu ko di ko defal travailleurs yi mhm. moo tax ñun dañuy ànd ak moom di ko jàppale di ko ñaanaat que gis nañ effort yi nga xam ne moom lay def si Dakar Dem Dikk mais mu gën a bàyyi xel travailleurs yi mais li si ëpp solo rek tey mooy suñu kaar yi nga xam ne daal ay bis Iveco la nañu si jàppale comme ni ko DG mu ñëw loolu moo ëpp solo moment bi mais balaa may jox saa ci fonction euh, fonction publique amoon augmentation bu amoon boobu da ngeen ci bokkul wala déet non xam nga moom laa la expliqué nii xam nga ñun hmm. Dakar Dem Dikk gën nañu am augmentation des te bi ñu am sax DG bi fi nekkoon moo ko defoon xam nga augmentation des salaires rek dem ci état bi du yuuxu am ko dafa am li nga xam ne mi ngi suñu biir d'abord tey boo xoolee revalorisation des salaires à Dakar Dem Dikk am na si li nga xam ne tey muy plan de carrière yi échelonnement yi bu ñu ko respecté rek loolu rek déjà égal augmentation des salaires mhm. kon loolu ñun ci li ñu gën a liggéey ak la direction générale pour suñu ay salaires yokk li nga xam ne nag. pour yow la carrière des travailleurs mu ëpp solo pour gérer ko ba ñoom ñu am statut bu leen di permettre seen salaire yëg. waaw parce que bu ñu respecté plan de carrière yi je pense que tey boo ñu respecté plan de carrière yi yow mi ne da nga ñëw Dem Dikk. comme ñi ma àndal ñëpp soo xoolee plus de 15 ans 20 ans ñi ngi dem dikk su fekkoon échelonnement yi respecté nañ ko kon yaakaar naa ne benn travailleur du jàmbat mais loolu dafa nekk ay manquement yi nga xam ni ci loolu la ñuy gën a dox parce que ñun ay syndicalistes la ñi nga xam ni barewuñu brillant ah, parce que boo xoolee à travers la presse gars yi dañuy yuuxu di wax rek mais ñun li nga xam ne ñu ngi koy lijjanti suñu biir kër pour travailleurs gis seen bopp ci yokkute ñi ngi koy dox ak le bureau di collaborer avec la direction générale pour ñëpp mën a gis seen bopp. Mhm. Sandiogou. voilà <clears throat> jërëjëf Madiaw Xor Madiaw. dégg naa la nga wax ñaari yoon bureau légitime dafa am beneen bureau bu nekk foofu bu ngeen di xëccoo légitimité wala nu mu demee noonu. ñaari yoon dégg naa la nga wax. bu ñu la waxee bureau légitime. waaw mooy le C3D. Mhm. dafa dem congrès. Mhm. si ay élection ñu voté. bi ñu voté yàlla def. Mhm. ma génn. waaw ñu jiital ma. te ñi ma jiital ma leen di sant ñu lay contesté wala. non mënul ñàkk ci àdduna meen. tamit ñi lay contesté lu baax la ñu bëgg. ni ngay mais man bon mais yow ce que yow yëg nga ni légitime parce que le fait que ñaari yoon ngay présenté wu di wax naan bureau légitime bureau légitime. man moo ma soo déggee ma la légitimité. dafa baax. yow dafa mel ni da ngaa ñëw si organisation dafa baax si organisation. donc moom dafa mel dafa ñëw ngir. légitime dafa am ci congrès ñu fal ma. travailleurs jiital ma ba pare. en commençant par son premier adjoint ñëpp. mais yow ci congrès bi la leen fale. mais yow est-ce que xam boobu man dama koy contester ah. parce que li tax ma koy contesté moom moo tax ma koy contesté de. Ah, parce que wa ilaa na bàyyi loolu kon na bàyyi fu mu toog naan bureau légitime parce que bu fekkente ni bi li ñaan un tigre ne doit pas xam la montrer sa tigritude loolu mooy sa problème fi doon li yow parce que yow dafa mel ni gëmugoo ne yow légitime légitimité dafa am solo dama bëgg a jàngal askan wi <laughs> ñëpp ñi nga xam ne dañuy yor syndicalisme yaa ngi dégg ñu jéem a nan la ñuy amee bureau bu légitime parce que bureau bu amee légitimité. <laughs> dina permettre. membre syndicat ak travailleurs yëpp. mën am si yow yaakaar pour nga mën défendre les travailleurs. nga yow comme que le fait que euh, foofu ca Dakar dem dikk légitime fa ba nga ñëw ci tele bi pour bëgg a légitimité sa bopp moo lay wane la kon légitime. non dama ni su ma ñëwee fii di leeral. waaw saa njóobu sama doom bàyyi pour xamal la ni la. ah, ah, ah bul ma tooguma fii sama doom bàyyi tooguma fii. comme Madiaw forme beng rek. simple Madiaw. maanaam dama fi toogal syndicat. waaw sama premier adjoint mi ngi nii monsieur Assane Niang kii wuutu mu mu ci li wax xam naa li tax légitimut sunu waa ji Omar Gueye sa turandoo kii dafa bëgg wax ni moo ko xam wutal na Omar Gueye sax. place ba ne mission xaw ma na ñu ngi koy gërëm clin d'œil boobu pour koo. waaye naan teel <laughs> a dañoo xoolaat ah, naan di a xam nga tey saa fii tey waxuma la waxuma la wal fajiri mais Sénégal yëpp xam nañ kan mooy Omar Gueye. Omar Gueye yor na syndicat bi dix ans. Ah. te ah. lépp ci ay congrès yi dem am légitimité ñu fal ko. kon tey. su demee ba directeur général am si moom confiance ba def ko chargé chargé de mission mhm. ñu ñëw jël syndicat bi suñu conseiller la suñu kilifa la suñu lépp la naan te jërëjëf ku baax la nag moom waa d' loolu yëpp xam naa ko fi ngay jëm ak Omar Gueye dugal nga ko ci kii boobu rek xam naa maasaale ko léegi saa ñun ñu ñëw ci car yi parce ban man dangaa dem di bon wax dëgg fa yàlla d' abord li may jëkk a ñaawlu mooy euh, société la boo xamante ne bi su manifestation amee ñu taal ay kaar loolu moom dama koy ñaawlu loolu moom wax dëgg fa yàlla Dakar dem dikk euh, nañ leen bàyyi parce que ay sénégalais ñu ngi fa nekk te ci biir sénégalais yooyu am na ñu féete parti bi am ñu féete parti bi donc jarut ñuy attaquer li nga xam ne mooy kaar yi mais yéen ci liggéey perte yéen kaar yooyu ñuy taal sax dafa mel ni avantage la ci yéen parce que moom ngeen di latoo man dakaar dem dikk mooy société boo xam ne ak mu jot état jël xaalis def ci jëndal leen ay kaar euh, te ñoom man gisuma xaalis bi fi muy dugg est looloo tax président sax lànk ngir. bañ a seen salaire est-ce que Dakar Dem Dikk ni mu war a doxee mi ngi koy doxee. xam nga tey soo xoolee. Dakar Dem Dikk tey aujourd'hui ñu wax plus qu'un patrimoine. nekkatul Dakar Dem Dikk Dem Dikk la ñuy wax léegi plus qu'un patrimoine parce que. Mhm. am nañu réseau interurbain. am international. Mhm. ñun président de la République son excellence monsieur Macky Sall. waaw dama ni dañ koy sant bu baax di ko gërëm mhm. parce que tey bu ñu yaakaaree kaar yu bees su ñëw bu ñu a ci moom lañ ko yaakaare parce que mooy la plus haute autorité mm. du pays bu ñu fal mu jiite senegal yi Dakar Dem Dikk nag toll na fi nga xam ne tey mm-hmm. yaakaar naa ni dañuy sant yàlla parce que ñu séentu 1400 bis Iveco yi nga xam ni ñëpp xam na ni bu ñëwee dina jariñ travailleurs yi ah. jariñ askan wi kon ñun loolu est ce yaakaaru leen ni seen seen seen société bi mi ngi ci yoonu naax saay parce que li tax ma lay wax loolu Euh, xam nga yéen gars yi ngeen doon concurrence al nu mooy euh, bojo bojo yi mooy afti ak yooyu comprendre nga ñoom ngeen doon concurrence léegi BRT mi ngi ñëw BRT xam nga ni président fi mu bu bees ku ne xam na ni euh, li ñu naan jigéen ñi sax moom la ragal jabar ju bees xam nga tey BRT bu ñëwee focus lay def ci BRT yéen est-ce que yaakaaru leen ni BRT mën na indi ay jaxasoo ci seen i mbir. dootul mën a tee dox est-ce que BRT menacé wu leen. donc euh, comme ni nga ko waxee je pense bien que ni. waaw Dakar Dem Dikk. Hmm. concurrence wala kenn fii nii. Ah. ñun ñëpp la ñu yamale parce que ñun ñëpp ay Sénégal lañ. ki nekk si acti bi ki nekk si ay tëli boppam dama ni BRT bi lu baax la ci réew. Ah, waaw émergence la ñu wax émergence la wax kon dañu war a émerger gis nga BRT bi naa la xamal leen. même su hmm. fekkee dina wàññi ay lignes Dakar Dem Dikk. Dakar Dem Dikk mooy yor rabattement bi ndax BRT bu déparé Géejawaay jëm Petersen boo jógee si sn banlieue bi pour jël BRT Dakar Dem Dikk ngay jël soo wàccee ci euh, Petersen tamit Dakar Dem Dikk jël kon li ëpp solo nekkul lii ñu bëri yi nga gis mais maanaam taux de charge bi nga xam ne tey Dakar Dem Dikk mi ngi koy yàpp ci askan wi di leen yóbbu ci li ñu war a demee ci sécurité confort régulateur ñun loolu moo ñu amal solo mais BRT lu baax la askan wi ne gisatuñ Dakar Dem Dikk parce que léegi mun nga taxaw ay waxtu yu yàgg doo gis sa bus contrairement ak li doon am ci jamono Moussa Diop très bien comme ni ko waxee depuis que sama turandoo ñëw moom yàggu fa yà xaw ma yàq na fa xaw ma yàqu fa Umar bun Xataab Silla Ousmane si Silla tamit ñëw na ñaari Silla yi mais danoo gis ni jéego yi Moussa Diop la askan gënoon yëg seen bopp parce que li ngay wax ni yëpp tey ji ci bilan Moussa Diop la mooy bus yi régulier Sénégal dem dikk ba Afrique dem dikk mais depuis ko mu jóge fa dañoo gis ni Dakar dem dikk di daanu di delluwaat ginnaaw bu baax a baax alors que bari na li ngay jàmbat tey féetewoon na ginnaaw ci Moussa Diop. xam nga comme ni nga ko waxee si yow Omar je pense bien que ni yow ku fidèle ku fidèle nga sax si Dakar Dem Dikk. Mm. Ah, parce que yàgg nga jël kaar yi. yàgg nañ la xamee abonné naa fa 4 ans. macha allah kon donc li nga wax nii gis nga Dakar Dem Dikk ñun depuis Christian Salvi ñu ngi fa. Mm. depuis Christian Salvi bi mu fi jógee gujaay bi Moussa ñëw fi <laughs> Dame Diop ñëw Moussa Diop ñëw gis nga Dakar Dem Dikk actuellement nii dama la bëgg a xamal lenn fii les hommes passent les gestions demeurent mm. kenn saxu fi benn état saxu fi benn direction générale saxu fi mais actuellement nii tey comme ni nga ko waxee directeur bu nekk dafa am looy def bu jeexee nga dem ñun noonu la doxe doxee maanaam tey comme li nga wax ci Moussa Diop hmm. dañ koy sant di ko remercier parce que tamit ñëpp xam na ni moom Moussa maître Moussa bi muy ñëw Dakar Dem Dikk président de la République son excellence jàppale na ko ci ay kaar ci lépp moo tax tey mu am sañ-sañ am fit créer Sénégal Dem Dikk créé AIBD Afrique Dem Dikk recruter te loolu noonu tamit bu mu demee ba war a jeex dafa war a jeex jusqu'à présent AIBD Express Dem Dikk mi ngi dama ni doguma la pareegu ma de dama ni xaar maa la maître Moussa Diop bi mu defee li muy def ba dem tey Omar Boun Khattab Sylla dafa ñëw Omar Boun Khattab Sylla ñëw na tamit moom tamit def na li mu war a def tey bus Iveco yi war a ñëw ci moom la jógee ba mu dem waxtaana ji ko ba tey bu ñu am espoir di a ñëw ay usine de yooyu yëpp tey ci moom la Ousmane Sylla tamit bi ñu ko fi indee tamit dañ jàpp ne moom tamit yéeneem mooy kaar yi ñëw mu yaatal Dakar bi comme ni mu koy defee les légions yi nga xam ne sax nord la yi nga xam ne tamit maître Moussa Diop moo créé mu yaa waa yaangaartaa yi légion du sud bentoo mu daw ak les légions du centre kon ku nekk si ñoom da ngay ñëw apporter dara entreprise bi nga xam ne ñun suñu entreprise la parce que ñun ñoo fa am ay série yi nekk ay travailleurs kon képp ku fa ñëw rek président Macky Sall teg la fa ñun le syndicat sur 3D dañuy ànd ak yow pour l' intérêt de Dendbick ak pour l' intérêt général de tous les travailleurs de Dakar Dendbick euh, euh, ma Madiaw Xor voilà Madiaw ñaata syndicat moo am biir Dakar Dendbick waa Dakar Dem Dikk am na six syndicats. six syndicats. Hmm. <laughs> xam nga dama dama mës a dañ dama mës a laajte foofu ñu ne ma am na ñoo xam ne dañu ànd ak direction am ñoo xam ne ils sont la direction yéen yéen yéen si je comprends bien yéen a ànd ak direction bi voilà. xam nga nee naa la Dem Dikk dafa am hmm. six syndicats mais dañu am un cadre inter des syndicats. Hmm. tey ànd ak direction. mooy collaborer avec la direction générale ci dëgg pour l' intérêt Dem Dikk d' abord. bi nga xam ne pour l' intérêt général de tous ma reformuler. yéen yéen a ngi collaborer ak direction bu baax. tey la waala gën a ay. yéen a ngi président Macky Sall d'accord dañuy ñëw ànd ak yow parce que dañuy gëm ni sa ndam mooy ndaw ndamu travail yi mooy ndamu sénégalais yi mooy ndamu ñëpp. moo tax ñuy collaborer moom moo diriger ban syndicat. wala Souleymane moom jiitewul syndicat non yorul syndicat moom lan la. non yorul syndicat. <laughs> moom lan la non la. dafa jubóowul ak syndicat yi wala lan. Souleymane non est-ce mm. yow jaawale watur yi non non da nga il faut est-ce que jaawale am non directeur la mais kooku directeur la mais moom deful syndicalisme. deful syndicalisme ku baax la kuy liggéey liggéeyam la. pour kër gi jëm ci kanam d' man xam nga lan laa mënul comprendre ngeen nekk ci biir benn société ngeen nekk fa six syndicats te munu leen fexe ba booloo xeex li nga xamante ni moo di intérêt liggéeykat yi pourquoi mënu leen déggoo parce que man Dakar dem dikk heure bu ma fa laajtee syndicats yi ànduñu. wala boog ku ci nekk dafa am koy xeexal ñii dañuy xeexal direction ñii farak travailleurs yi wala lan wala du même intérêt travailleurs yi ngeen di. ngeen di ma ne la ñun avec les six syndicats dañu am un cadre unitaire des syndicats. mais jubóowu leen. non xam nga ñun. lu mais amuñu benn problème suñu biir. mais ah, jubóo déggoowu leen moom si la mooy suñu problème da nga mooy gis ay syndicat yu xam naa leen yàgg naa leen dalal sax saa yoo xam nga li may wax syndicat yëpp benn lañu les secrétaires généraux des syndicats ak la koy Alassane Niang mais xam na ne nekku leen benn benn lañu parce que lenn rek mais benn lañ la mooy problème bi <laughs> mais yow may dafa dafa am benn jeu bu ngeen joué biir Dakar dem Dakar ah? mënuñu bokk li ñuy xeex ba pare te duñ déggoo nañ de un cadre des syndicats dafa am benn le collège des délégués mi ngi fi kon la mooy suñu problème dafa am benn jeu bi ngeen te lool patron bu jiite entreprise mooy li ko arrangé mooy diviser pour mieux régner mais Dakar dem dikk loolu dafa am daf ci am ñoo xam ne tey comme ni nga euh, collaborateur ñoom Madia Diop mi fi ne lu ñu doon ay participation responsable maanaam fexe ba njaatigéey nga dégg ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci yu bari am na ci ñoo xam ne dañuy radical comme ni mu amee rek ci politique ñii di saafonte ak di matla mais aussi ñii di radical mais jeu boobu ngeen di joué intérêt liggéeykat bi la parce que man mënu ma gëm nga ni secrétaire général ah, syndicat nga nekk en connivence avec le patronat léegi foofu lan moo fay intérêt liggéeykat bi parce que déjà comme li ngay wax ci Omar Gueye sama xarit tey ji am na promotion chargé de mission yow tamit boo jegee directeur bi mun na am ngay am privilège yoo xam ne ci yow la jëm directement mais liggéeykat yi la jiital ba pare teg la ci seen kanam ñoom lan la ñuy gañee ci collaboration boobu sa diggante yow ak patronat bi. xam nga fi li mu la bëgg a expliquer lenn rek la tey hmm. actuellement nii. li nga yaakaar ni moo am Dakar dem dikk nga ni direction générale bi day day day diviser les syndicats comme ni nga ko waxee. fii direction générale non si non mais maanaam lan nga wax yéen accepté cette division parce que da koy arrangé loolu mais yow yaa gis division boobu déggoo ma la un cadre inter la ñu am ak le collège des délégués fii DG bu fi mënti toog ñun hmm. li ñu gëm ñun bokk muy suñu cadre bi mooy jàppale ko avantage yi ngay wax liggéeykat bu nekk yokkute nga bëgg dakaar dem dikk même ki gën a suufee sax directeur général jomb ko maanaam ñun lépp lu ñuy dox di ko xeex mooy jàppale travailleurs yi pour ñu gis seen bopp ci entreprise bi. te ci loolu la ñu nekk mais bu amee mauvaise gestion nag léegi ci patronat bi léegi. nekk boobu ngeen nekk ak moom léegi ñu wax jàppale ban action ngeen jàppale travail loo xam ne mën nga ñu ko tegal fii. yéen ak yi ngeen am. allez waaw mais tey euh, le site 3D. Hmm. syndicat unique des travailleurs de Dakar Dem Dikk. waaye hmm. naan la ñu ngi jógee ci première mais <laughs> le si 3D toujours. ci première mai bi dama ne ñi ngi jóge ci première mai ci ay ay ay ay doléances yu ñu joxe dama ne. Ah, ah, le si 3D ñun lépp li nga xam ne tey jafe-jafe travailleur la hmm. ñu ngi ciy dox. ci biir kër gi comme lu mel wax ñu ci benn kañ. mais ci ay avantages rek yu bëri. am na avantage xam nga tey. xam non euh, jamono ñoom Omar Gueye dañ naan lii ñoo ko indi wala euh, gujaa bi. lii maa ko def lii ñoo def lii yow léegi lan nga defagum. waaw mais li ñu defagum mais xam nga tey boo nee li ñu. bureau légitime lan ngeen defagum. bureau ngi def social di jàppale travailleurs yi di dox di collaborer. social lan ngeen pour non. fan ngeen jëlee xaalis bi ngeen defee social yi. mais xam nga tey suñu la waxee social. nit ki doo def lu baax pare ñëw fii. naan collaboration ah, ah, social yi dañ koy social non non social social dafa yaatu. dafa yaatu. mais collaboration dama ne man tooguma fii en tant que pour wax lu baax li travailleurs yi ñun ak ñoom ñoo nekk si entreprise bi ah! comprendre da ngeen ma invité. secrétaire général sama bilan waaw sama bilan sama bilan ba ma sànni la waaw may ma te dégg naa yéen seen secrétaire généraux yi ñu ci bari dañuy bëgg di di di di di chantage ki nga ñi nga xamante ni ñoo di waa direction looloo tax man la bu fekkee ni ñi a ngi ra ñi ngi liggéey ñeneen ñi ñu ngi ras dem daf ci am loo xamante ni ci biir kër ga ma nga ca damaa bokk Dakar dem dikk de yow loolu kon yow yaa ko xam yow yow mi nekkoon fajiri yow mi nekkoon fajiri loolu nekk ba xam ni syndicat yi juwuñu man loolu man man bis di ragal naa la mais man gisuma loolu. loolu de ci ñoo xam ne dañuy chantage direction. bari nañ la boo deful lii ñu def lii génn lii nangam ak nangam. Omar Madiaw Madiaw dafay esquiver question bi wax la. ñun toog nañu mettre ñëw di ñëw waaw Omar léegi man Moussa xam lu leen da ngay wax ne leen dama koy toj man man Moussa yow bi yow no xam xam dañ ko laajte mu am loo xamante ni nekk na non no toog fii bëgg xam ne tamit Dakar dem ñun xam nañ Dakar dem ñun ñëw nañ fa ñoo la gën a maîtriser Dakar ñun ñu fa nekk dafa liggéey ñun ñëw nañ fa ñun ñii ak Sa Ndiogou ñëw nañ fa. waaye dañoo xam ñu ko xam nag. bàyyi ko te ngaa ñëw dem ñu liggéey bokk. xam naa mooy dernier question man damay commencé foofu kon damay commencé fii saa njëkkoon wax si BRT bi est-ce que yéen seen chauffeur yëpp duñ daw mu gi dem si BRT bi buteelu BRT bi waaw bi mooy aussi tamit yéen est-ce que marché yi ni ñu koy defee si Dakar Dem Dikk kii na parce que lu si bari yéen ngi wax bis yi war a ñëw mais xam nañ ne Dakar Dem Dikk problème moom euh, kii la ñuy am euh, matériel yi ñuy rechange matériel de la ñuy am waaw lan mooy lan mooy problème bi foofu ba xam euh, marché bi fi ñu koy joxee moo baaxul wala dafa amagul marché pour pour pour ñu war liggéey xam nga tey soo waxee travail Dakar Dem Dikk yi dinañuy daw wuti le BRT commencé wul daw Dakar dem dikk balaa nga. mais actuellement nii dama ni actuellement nii li ñuy gëm ñun li ñu gëm nekk ci. Ah, di ko xeex mooy ñaan ah, yàlla suñu borom suñu ay kaar ñëw ba ñu gën a jàppale. li Pape di wax travailleurs ci les conducteurs. Mm. parce que comme ni ko directeur général bi waxee bentoo mm. deux dina ñëw marque Iveco bu urbain ak bu interurbain pour ñu gën a ci formation conducteurs yi parce que ñëpp xam na ni conducteur Dakar Dem Dikk ay professionnel lañ. Dakar kenn ko téye parce que nous voulons faire de Dem Dikk nii bu ngeen amee lu ngeen di lu ngeen di bëgg ñu ñu defaraat ko ci seen liggéeyukaay ak seen euh, nekkin ci biir kër ga Dakar Dem Dikk lan la présentement. ñun lu ñu bëgg rek di ko ñaan yàlla suñu borom. Hmm. mooy kaar yi war a ñëw fin juin da ñëw ak jàmm d'abord bu kaar yi ñëwee ñuy demande waat la direction général mu hmm. gën a bàyyi xel. plan de carrière u yi. yi nga mm-hmm. xam ni ay jàmbaar lañu. Mm-hmm. nekk fa des années et années muy les mm-hmm. anciens ak les nouveaux. ñu jàppale leen bu baax a baax ci seen plan de carrière yooyu lépp li nga xam ni tamit ay manquement la. ñu fexe ba loolu yàlla suñu borom def mu saafara. mais ñu tëjee foofu ma jaw xoor peut-être foofu la ñuy tëjee. waaw Macky Sall dafa wax démb lu am solo te moom liggéeykat la maanaam dafa ne benn journée de grève une journée de salaire. loolu ci réew moo xam ne tey jii xeex bi ñu fi xeex ci syndicalisme loolu est-ce que président war na egg ko ay liggéeykat maanaam benn bis boo toog grève mën nga ko ñàkk ci sa salaire maanaam ñu leen di sanctionné loolu est-ce que du jalgati. xam nga tey lan moo war a jeex ci Sénégal. Hmm. grève dafa war a jeex. dañu war assumer suñu ay responsabilité dañu war assumer suñu ay responsabilité gis nga nit ah, ah, mënoo toog ci branche bi di ko séyee président de la république bu waxee ni loolu su mais président moom la yàlla teg ci réew mi moom la gën xam li réew mi anta ak li réew ah, ci li nga xam ni tey da koy def pour pour pour lu neex mm. askan wi wala ñu dégg la man su ma neexoon en tant mm. ma wër plateau yëpp di attaquer président Macky parce que buzz bi fa lay ëppee doole mais ñun dañu nekk un bi nga xam ni waxuma la sax ah, président mais tey direction générale bi fi nekk mm. dañuy ànd ak moom pour intercœur ak intravail centrale bi nga xam yàlla dafa def mu bokk ci centrale yi nga xam ne bu dee formation bu dee luy jëmale kanam liggéeykat ci mm-hmm. entreprise loolu moo tax ñu dugg fa jërëjëf ah, Madiaw tàggool balaa may tëj sa micro waaw donc ñu ngi sant yàlla bu baax di leen jaajëfal di wax vraiment Sénégal lii rek la yal na jàmm ji sax si Sénégal bu baax a nag sama waa syndicat di ko teg ci loxo le premier adjoint Alassane Niang ak waa Dakar Dem Dikk yëpp di ñaanal directeur général bi nga xam ne tamit mooy Ousmane Sylla yàlla teg yàlla na ko yàlla may ndam parce que ndamam mooy ndamu Dem Dikk mooy ndamu Sénégalais yi mooy ndamu président Macky Sall di sant bu baax di ñaanal tamit samay mbokk waa Yangarta waa Waalo parce que man je <laughs> mais maa ngi lay ñaanal. waaw bu baax a baax euh, début bi damaa gis nga bëggoon na ñëw rek taxaw ko am moo tax il fallait que ma def la nii. mais maa ngi lay gërëm bu baax. Hmm. ci teewaay bi Alassane tamit ñu ngi koy nuyu bu baax Omar Gueye dem dikk moom bari naa fa ay wëllëre. Jibi Gueye moom nekk ko fa euh, moo ñu gënoon a lakkal ci Dakar dem ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen euh, sant. Uh-huh. dem dikk am na njëriñ am na solo na booy bàyyi toj bi ah. li hmm. mooy dañu am benn vieille doléance bi nga xam ne mooy treizième mois te yaakaar naa ni bokk na si doléance bu gën a fort treizième mois bi nga xam ni tey jombul travailleur Dakar dem dikk yi. treizième mois boobu. yéen seen rek bu kaari ñëwee treizième mois la si 3D demande na ko pour l' ensemble des travailleurs dem dikk parce que foofu lañ toll euh, travail dañ leen war a jàppale dañu war a dinaa la ñu parce que kii nga ne Omar mii du la arrêté <laughs> voilà ayca waa Dakar dem dikk la syndicaliste la ñu c'est très normal dañuy jabaxal rek fin temps la ñuy bañ ñu ci nuyu nag suñu xarit suñu sister Ajaratu Ndeye Astou Gueye ma nga foofulee ca Dakar dem dikk di jaajëfal Abdoul Aziz Dia ak Alsane Niang ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu suñuy xarit yu yàgg la ñu waa Dakar dem dikk